ngeen jëf ñu leen jaajëfal baax a baax a baax ñëwaat nañ ci beneen numéro ak euh, Dakar Animaux tey ñi ñu dalal fi koo xamante ni euh, c'est pas la première fois homme de média la boo xamante ni Sénégal yëpp xam nañ ko ci wàllum animation ci wàllum télévision ci wàllum rajo mais tey ñi gis beneen facette ci moom muy wàllum élevage de chien muy muy loo xamante ni ñun umpoon nañu Paco ñu lay ñu lay nuyu. waaw maa ngi lay nuyu monsieur Ndiaye. Euh, di contente di nuyu tamit mbokk internet yi. di wax ne bienvenue. tey ñu xamoon la ci animation. alors que ginnaaw animation bi am nga leneen loo loo nekkaan muy yarum xaj. Mhm. élevage de chien. Mhm. lan nga ñu ci mën a wax. waaw yarum xaj moom euh, Sénégal Sénégalais mom ñi ma ci xam je pense mën nañ ne kilifa réew mi xam nañ ma ci. Mhm. waaw lolu solo ci bitim réew tamit xam nañ ma ci. Mhm. Euh, su ma nee bitim rew ne Maroc. ne Afrique Sud gaay xam nañ ma ci bu baax. Mhm. Euh, waaye nak xaj nak timit dafa am dafa am wuute parce que bo ne xaj rek day xawa a ñu bari. mais buñ ne xaj nak gu baax ga tax. waaw gi nga xamante rew mi mom lañ ma xamé kilifa yi mom lañ ma xamé muy. comme yii nga xamante ne moom ngeen di gis nii ak yeneen yi nga xamante ne euh, ci biir émission bi di ngeen gis ñu wan leen ko incha allah rabbi. d'accord d'accord ñu gis ne bokk nga ci lu ngay ëpp lu ngay liggéey Euh, muy ñaari race yi moo ëpp yu ngay liggéey am muy malinois ak DG allemand yi pourquoi nga choisir race yooyu. waaw damay njëkkee ci malinois parce que euh, xaj la boo xamante ne lu tax ma choisir ko mooy que ne euh, boo xoolee ñu bari bari bari ci kilifa yi moom la ñu gën a bëgg tamit mën nañu wax loolu parce que xaj la boo xamante ne macha allah dafa bëgg xale. loolu moom lu lu nit ñi bàyyi xel la xaj la tamit boo xamante ne dafa actif bu mën la actif nag xaj la ne tey euh, mën na xëy daw lu tolloog juróom-ñaari kilomètres. xaj la bu dëgër. tey du ko wàññi dara tay boo doon xool boo ko doon natt comme dégg nga ni oto bi daa dëgër. Mm-hmm. nit ki daa dëgër waaye dafa am doole. Mm-hmm. mooy xaj bu dëgër xaj bu am doole bu am santé. Mm-hmm. waaw bu bu bu dégg boo xamante ne tamit euh, ni nga ko gisee nii. comme ñoo ngi nekk nii amul benn problème ak nit ñi. yaa ngi comprendre mais tey bu ñu jógewoon fële ñëw bëgg jege rek automatiquement dalay songu day xew parce que actuellement il est en garde ak ñun. d'accord mo ngi yir ni koy gisé ni d'accord non la démé d'accord d'accord donc donc donc DG allemand yi. Mhm. euh do def dara. <laughs> ah d'accord accord kon c' bon <laughs> d'accord donc donc donc euh malinois DG allemand mom mhm. nga ëpp lu ngay lu ngay lu ngay ya donte gis naa sa ki bi ay gis naa fi yenn race ah, gis naa boor yi gis naa fi gis naa fi picc mhm. mais naka nga gisé par rapport ak sénégalais yi. ak yaru xaj parce que bu njëkk ñun temps booy xaj bu duggee suñu kër par jaase lay génne dàq ñu de léegi gis nañu Sénégal de plus en plus ñu ngi commencé bëgg xaj lu waral loolu waaw du ñu gars yi bëgg nañ xaj en même temps ragal nañu xaj quand je parle ragal ah. hmm. nañu xaj yóbbu nañ ko foo xamante ne sax da ngay jàpp ne xaj bi tey mën nga ko jaay ay huit cent mille la ñuy jàpp la nga tiit kër toit bi kër toit bi xaj yi da nga ko doon gis kër toit bi hmm. léegi boo xoolee man kilifa may jaay bien vrai que maa ngi jaay ay tubaab hmm. mais bay boo xoolee ñoo ci nekk est-ce comprend nga. Mm-hmm. tey parce que boo ne boo ne xaj rek li ñuy njëkk xalaat mooy que ne kuttu ya salte ba yorin ba xaj yi nag foofu la wutee ak ak ak ak yeneen xaj yi. ndax xaj yi tey li ñuy njëkk njëkk am ba mu ne la dëgër mooy santé wér gu yaram gi tamit da ciy joué waale bu baax. Mm-hmm. moo tax ñu am benn différence si nga xamante ne mooy euh, ci dundin gi. Mm-hmm. loolu tamit lu ci nekk la beneen bi léegi yaa ngi doon wax ci wàllu xaj ci Sénégal. Hmm. xaj ci Sénégal tey tey ñu bëri bëri bëri bëri ñoo ngi soog a découvrir lan mooy xaj à 100 pour cent. Hmm. ndax xaj bi ñu jàppoon ne mooy xaj tur xaj la. Hmm. tur ba la mais dafa am wuute gu ci am gu rëy rëy rëy. si ay xaj yu bëri bëri yoo xamante ni yow yaa ngi importé Maroc. ak ak Afrique du Sud Eh, la moo tax nga def choix ci ci dëkk yooyu Sénégal amul xaj yu baax wala wala yow yaa bëgg lu spécial. xam nga man man man man man man pur sang lay wër tey boo ko doon natt li gars yi def pur sang pur sang lay wër. bu baax bi fa nga koy amee. Mm-hmm. te man beneen bi tey tey tey tey lu jëm ci wàllu xam naa ne peut-être di nga ci ñëw tey jule moon ci wàllu tey xaj bi ak yaayam ak doomam fi mu soqeekoo comme gars yi dañuy wax. Mm-hmm. loolu tamit day doon loo xamante ne da nga koy topp lu sori. lu sori pour nga am li nga xamante ne moom nga bëgg loolu mooy waral tey ay Afrique du mooy waral tey ay Maroc parce que tey boo demee xaj yooyu nga fi fekk yii nii moom nga fi fekk xaj yombut mhm. xaj bi tax ñuy xaj yombut lu baax yombul olof ni mu koy léebee lu baax yombut mhm. loolu tax lu tax nag Sénégal yi jàmm baaraam lu tax kilifa yi jàmm baaraam ci wàllu xaj su ma ne jam baaraam mooy que ne tey réew mi ñu nekk réew mi ñu ne amul nit ku bëgg war a mën a jënd xaj bu baax te woo ma man amul mais vous éleveurs yi fi nekk ngi non nous ngi jaay mais njaay yi bokkut xam quand je te parle jaay ñoo ngi jaay mais tay réew mi ñiy seetaan xam nañ loolu kilifa kilifa yépp tay hmm. tey ngi suma numéro. Bonjour, je m'appelle Malik Kamara. on est dans notre verger ici donc euh, auparavant on avait eu beaucoup de vols ici mais depuis l'arrivée de notre chien nous avons stoppé ce fléau grâce à notre chien qu'on a acheté chez saint Sanofi. salaamaaleykum man la Zakaria Camara euh, ma recevoir tay fi saint Sanofi bon xaj bi si ñoom laa ko jëndoon vraiment c'est un chien adorable xaj boo xam ne ni c'est c'est un chien sociable bëgg na xale jege na waa kër gi ñëpp muy mag ak xale yëpp et aussi s'il s'agit de protéger c'est un chien boo xam ne ni protecteur la euh, mun na veiller à la sécurité de la maison et de toutes les personnes de la maison vraiment content naa ci xaj bi lool c'est un chien qui nous nous quitte je parle il fait partie de notre famille maintenant voilà gis ngeen gis ngeen ne Paco euh, gis nañu gis nañ jaay nga avocat jaay nga ay policier jaay nga boroomi tool yi mais tey est-ce que du carnet d'adresse bu riche rek. moo la may loolu wala wala lan la exactement. parce que tamit jaay colonel ne veut pas dire que yow yaa gën a baax xaj Sénégal. xam nga bu leen xool ne Paco yo mu ngi ci tele yi mu ngi ci rajo yi peut-être am na xame bi gérant mille la depuis des années non noonu non c'est pas ça bien vrai xam naa leen ci mais ñoom li tax. te ma jëflante ak ñoom ci wàll bi leneen la ci wàll bii la est-ce que di nga wax ci baax ci xaj bu baax bi la ci race bi la ci ngëneer gi la ci sàmm gi la ci doole gi la ci xam-xam gi la mais nekkul que ne xam naa un colonel wala xam naa benn avocat wala benn magistrat wala benn juge wala et cetera. ma leen nuyu au passage comprendre nga. du caagin dama leen xam moo tax xam bi non non dañoo bëgg lu baax xam ne lii kat seen njëriñ la seen kirlaay la lu leen di yiir la lu yiir seen njaboot la lu yiir seen i tool la. est-ce que tu nga wax ji baax. la. Mm-hmm. ci eh, j'ai un ami colonel wala j'ai ami nangam euh, numéro il va t'appeler il m'appelle s'il le faut je déplace. je me déplace pour venir. ne ko li ak li la la ñu prix. d'accord ma indil ko. ñu di prix parce que vraiment euh, prix bi cher quoi million nangam 800000 xam nga tey jii baadoolu bu si mel ni man mii bëgg benn benn xaj bu ne te dëgg fa yow waroo privé xanaa boog man ma bañ am xaj bu baax sama biir kër. xam nga yow da nga ne da nga ne da nga ne prix bi avant prix bi dafa am lu jiitu loolu. waaw tu sais que ne man damay jaay xaj te juddoogul. te wus te juddoogul comme ko xam nga sank li nga doon filmé non image je pense que ko nit ñi moy que né écho bi waaw nga may def bi avant xam xaj bi kat dans tom combien de mois na am nangam dombu nangam la wara am nit defee écho waaw moy hygiène côté hygiène côté santé bi surtout dama ci warlu bu baax ba nga xamanté nit ñi dañuy jënd avant avant que xaj bi est-ce que dégg nga xam nga yow nga xam avant seeraay nit ñi dañuy joxe seen xaalis nit ñi dañuy échange ak man ndax am na ñoo xam tey su may jaay benn xaj à trois cent cinquante mille wala quatre am naa fi nangam naa nangam pour jox la. comme tey par exemple man mën naa nekk jaaykatu dàll ma ñëw dugal sama dàll yi ne la dàll yi ma nga jàpp si yàlla ba ci terrain ba ci terrain mun mos dugal ci xaj yow sëñ bi dama ne ba ci terrain da ngay gis ko am tool ne tool bi mun naa si dagal benn poos waaw ah. nga indil ma benn xaj wala nga ma ñaari xaj man la ok nga gis koo xamante ne day yor moto wala oto wala dara ne la man kat moom laa bëgg dugal ngir bu ma ko dugalee léegi maam xaj xaj bi sànq yaa ngi wax ne cher mënul mënul yomb lu baax mënut a yomb ah. lu baax mënut a yomb maa ngi nuyu sama gars yi éleveurs yëpp maa ngi nuyu comprendre bu baax fàttewuma kenn gars yi mais ñoom xam nañu mënut a yomb surtout tey ñoom xam nañu benn Paco li muy def ci xaj li muy daj ci xaj li ma ciy def ci xaalis. Mhm. di ko indi. yaa ngi comprendre dafa doon loo xamante ne tey mënut a yomb. d'accord a yomb. mais tey tey ki nga xamante ni xëy na parce que man may man damay damay damay jël kaaw ñi nga xam ne xëy na amuñu Sénégal ñëpp amuñu possibilité jël cinq cent mille wala huit cent mille ko benn xaj wala benn quatre cent mille mhm. mais am na ñoo xamante ni dañuy bëgg xaj seen papa wala ñu jël seen papa retraité bu yàgg ñëw yor benn cent mille wala benn cinquante wala benn dix mille même. tey ñooñu naka ngay defal da nga leen koy xañ wala. non dama leen ko xañ c'est-à-dire mooy li ma la wax sànq wax naa la échange bi dama am ñoo xamante ne tey yombal naa leen ko du ma xaar ñu am benn deux cent mille wala dara. peut-être Sénégal gii ñu ne nekk à part kilifa yi may jaay nañ ma baal à part kilifa yi may jaay xam ne ñëw dañuy compter su la ko jox ma. yaa ngi dégg ñi des mën nañu am loo xamante ne mën nañ koo dugal su ma arrangé dama ko accepté maanaam nit mën na dugal ay. ginnaaw mën naa la jox sax mën ma jël exemple ci Jakarta rek. waaw comme Jakarta bee laa jàkkaarool. Euh, tey nit mën a am Jakarta wala vélo wala dara ñëw ne ma man lii laay dugal. est-ce que comprendre mhm. xam am na lu fu ma fu ma fu ma nekkoon ak yow jotuma ko yeggale mooy que ne wax naa la xar mhm. xaj bi dañ koy jënd ci biir yaayam. waaw mais ginnaaw bi nga ko jëndee par il faut moom deux mois ci mois ci man. ndax lan nah, pour namp gars yi pourtant bu ñu amee un mois dañuy libéré xaj bi na la demal day sonal yaay ji mox la dara Sénégal nañ nit ñi yeewu liir sax boko ko yore ci kër hmm. su namp gi matul xel mi du neex lu tax ñu ne nit bu ko nampalee biberon mag ñi bëgguñu nga nampal sa doom ci biberon ah. mag ñi bëgguñu nga jël xale bootee ko kanam hmm. day bëgg nga boot ko ci ginnaaw hmm. nampal ko bu dee góor ñu ne deux ans waaw wala déet parce que loolu namp goo da ci am solo xaj day namp lu toll ñaari weer nekk ak yaayam nga door kaa joxe nga door ko joxe mu am xel. mais boo ko yóbbuwul ci lu mu tolloog ñaari weer xaaj boobu mën na jur musiba foofu. Hmm. parce que ñu ne nañuy jàpp ne ñi ñu ngi jaay xaj yi amuñu temps sa xaj. Hmm. li ñuy mën mooy jaay leen xaj boo xamante ne bokk na ci jiw yu baax am xel. Ah, vaccin yi mat na vaccin yi mat na côté santé côté lépp. d'accord sinon di nga jaay nit xaj. mu tax c'est pas pour rien gars yi da si ma non. Hmm. bàkku ma c'est pas pour rien tey Sénégal. Euh, nous sommes surtout mhm. surtout surtout surtout ci mhm, mhm. parce que lu bax la. d'accord li euh, Gambie Côte d'Ivoire. tout le temps Maroc. Euh, donc tu de comme gars yi ñu wax rek ne Paco ku nekk ci ah. waaw mais c'est ça le Sénégal waaw loolu moom est ce que fii ngay defee weekend bi nii baax <laughs> waaw fii <laughs> <laughs> fii moom xam naa ne moom. yaa ngi xool caméra bi ah mi mi fonctionné ba léegi lii dama ko mu fenn. waaw fii euh, di ngeen xam fan euh, je pense que euh, di ngeen ma may ah. que ne defal leen li nga xamante ne mooy ku leen soxla publicité hmm. nga Joli Cœur fi la ci kër gi. Hmm.

am na lu tax am na lu tax. dëgg. Ah, loolu ban ban ban ban message ngay lancé sa moroom yi nga xam ne sa moroom éleveurs yi xëy na léegi élevage dafa xaw a jaxasoo n'importe qui se lève rek jël di am benn femelle lam dem accoupler gauche droite ne éleveur la est-ce que jotul tey yéen seen milieu bi ngeen assainir ko nag vraiment pour mu gën a set. waaw mais gaa yaa ngi ci gaa yaa ngi ci maa bu baax fàttewuma kenn gaa ngi ci ay jàmbaar lañu est-ce que comprendre nga. peut-être bi may bi may bi may lancé mooy buñ ne euh, Paco mi xajam yi dañoo cher. am na ñu nekk ci ginnaaw nañ bàyyi loolu kenn newu sama ginnaaw lu dul gëm liggéey lu dul jaay lu baax def lu baax amul leneen. ban parti nga non est-ce gars ngay au pouvoir. en tout cas bokul. de gars bu Abdou Aziz Mbaye le PDG Jean Sénégal ah. nuyu bu ah, de. nuyu Ousmane Sonko bu baax. Mangi nuyu bu baax. Guy ah. nuyu le maire Baragay voilà bu mm-hmm. comprendre. Euh, di nuyu tamit euh, ki nga xamante ne mooy euh, soxna si. Mhm. Sall Ngaari. La Lyon La Lyon. Ah. moom moom kañ dama ko bañ a wax. La Lyon <laughs> naan ko gaynde gi rek. Ah, voilà léegi daal pour fi may jeexalee mooy maa ngi nuyu ñëpp. Mm. kenn newu sama ginnaaw. liggéey bu baax la. góor góorgóorlu la jox nit ñi produit bu baax jiw bu baax wuti produit bu baax race yu baax ki am mooy la ñëw ki amul mooy la ñëw. Euh, xam naa ne xam naa da ngaa bëgg benn mais garaw euh, ki am lu nga xamante ne mën na ko indi man soit méchant. Mhm. parce que chaque jour la l'habitude de le dire. li ma mën a jaay la ministre. Mhm. peut-être mën naa ko bañ a jaay Sénégal lam daal bi nekk ginnaaw. ginnaaw paataar. Mhm. bu ñëwee boo amee loo xamante ni bëgg na ko yor na ko. laa amul problème.

ñi bëgg mën nañu woote ci numéro boobu après ñu xool lu ñu mën a def daal comprendre nga affaire yaa ngi fi daal merci yow it waaw di nuyu mbokk internet yi mhm. la ñaanal site bi tamit euh, mu dem fu sore sore merci d'accord tey nag suñu góol bi benn góol lañ jël mu ñuy filmeel xam nga <laughs> mais góor bu garaaw yàlla mu fexe boobu transhumé nag ñëw si <laughs> équipe bi ñuy gërëm baax wàllu bélier ah ñuy nekk entre Kër Moussa cinquante macha allah foofu moom benn coin la bu extraordinaire boo xamante ni je vous invite tous à ce que ngeen ñëw visité ko ñu ngi leen jaajëfal bu baax jaajëf